loolu nag di moom xam naa ne état bi daal waroon naa mën a sóoraale loolu yëpp ba nga xam ni. day jël ay mesures d'accompagnement yu saf-saf. yoo xam ne vraiment aussi boutiques yi ñu mën a suivre ndax kat ñoom ñoo ne ci suuf de waaw bu dee yow da ngay toog ci kaw di décider rek. te doo diisoog ñoom waxtaanoog ñoom ñu xamal la li mën a nekk li mënta ne yow ngay jël ay décision di annoncer rek di génn ay numéro vert gars yi dañuy woote ba tas. <laughs> nañ wàcc ci suufa suufa suuf wax ak gaa yi gaa yi tamit bu ñu dëgër bopp surtout nag suñu mbokk yi féete côté bële boo jegee frontière bi <laughs> ngaa la ah mais dëgg la di li ngay wax ni dëgg la de kenn mënu koo dindi de ah, jarul dëgër bopp de dañoo war a xam ni fii ñun ñëpp benn lañ léeg-léeg sax nga wàññi mu gaañ la mais nga wàññi pour pour pour euh, alléger li nga xamante ne moom la. nit ñi di dund actuellement waaw bilaay bi da koy jar waaye est-ce que ñoom pare nañ pour def ko mooy coow xam nga euh, état bi pour man balaa muy pour man ni dëggante bi mu annoncé mesures yi ak bi mu ko appliqué. dafa gaaw gaw ma ne consertation bu baax a baax xaj na foofu quoi. parce que defe naa ne weer la ah, su ma juumut entre bañ defee consertation bu mag ba fële ca kër gu mag <laughs> palais ah. ak bi biñ ne mesure yi day dugg en vigueur. pour man temps boobu dafa gàtt. waroon nañoo xool marché bi lan moo fi nekk. yow yaa doon wax léegi ne suukar dafa dafa manqué xaw ma. waaw daa manqué ne amatul. suukar si est-ce que gars yi téye wuñ ko parce que lànk d'accorduñ ci prix bi ñu leen wax ne nañ ko ko jaayee. Mm-hmm. xam nga tamit affaire bi business la aussi boo jëlee milliard dugal ko ci suukar tef teg ci bëgg am bénéfice ñu ne da ngay wàññi xam nga kon dootoo amati milliard. waaw mm-hmm. ah, léegi la la la la cay manqué est-ce que état bi pare na pour rembourser la ko loolu mooy wax ji léegi gars yi nag dañuy téye liñ téye boo waxee ñu ne la amut fekk am na. mais ñoom ñoo koy bloqué loolu moom jikko jaaykat la jaaykat yi seetaan nañ ma baal rek. Mhm. <laughs> waaye parfois ñu denc dara waaw parce que prix ba ba na ca marché bi arrangé wu leen. Mhm. waaw dañ koy denc nag ba prix ba yéeg nag ñu génne ko mais loolu yëpp pour man pour man impuissance su état la daal. waaw parce que état bi quand war naa mën a nag taxaw nag vraiment. Mhm. xam bu ñu waree bay joxe ay fiches ci bitig yi quand même loolu mooy ñàkk pexe. Mm. Ah, loolu ñàkk pexe. Ah. waaye ndax muñ ko woon tamit puus maanaam mbirum wàññi bi gën a defaraat concertation yi comme ni ñu def ci mbirum loyer bi parce que dañ ko puus ba la euh, premier janvier pour mën a tàmbali lii di euh, mesures yi ñu jël waaye boobu ba tey ñoom tamit seen waxtaan yi dafa mel ni accélération lañu la ñu jaawaleeg précipitation non xam nga li la ñu jaawaleeg accélération. waaw non xam nga bu fekkee ñoom dañu am yeneen objectif yoo xam ne yàkkamte nañu annoncé ay baisse. Mhm. pour mu mën a am ay ay ay. ay retombées sur le plan politique. Mhm. pour gars yi gën leen bàyyi xel aussi loolu loolu loolu baaxut. baaxul mbir yi da ngay def pour dimbali askan wi waaye booy def pour mepp askan wi bëgg leen sëlam mais du dem du dem daal defe naa dañoo waroon jël suffisamment le temps qu'il faut waxtaan ak acteurs yëpp. Mhm. te nag gis nga ngàlla nag gis nga association consommateurs yi tamit jar ñooñu tamit faaw ñu wax ak ñoom. Mhm. consommateurs yi seen association yi. Ah, mooy waa ASCOSEN ak ñoom seen. ak ñoom seen waaw. ñoom it vraiment dafa mel ne ah. dañ ma baal de waaye seen njariñ daal xam naa ne seen njariñ de war nañ ko remettre en cause des des des consommateurs man lan moo tax ñoom mënuñoo nekk benn. léegi lan moo tax ñoom ñu nekk ay pàcc pàcc xanaa nekkuñu di di di défendre li nga xamante ne. mooy yow mooy askan wi rek. waaw yow comme si nga ne ma parti politique yi moom lu tax nekkuñ benn. mais pourquoi ñoom ñu bëgg ne parce que parti bi gis nga bu réew mi am fi benn ci lépp. Mhm. ak jafe. da ngay ne ci association sax di ko doxal de nga gis gaa yoo xam ne d'accorduñ mhm. ci ni ngay doxale au lieu ñu ñëw jàpp ci xeex ci biir mais dañuy génn créer association parallèle. oui loolu moom dafa doy ci ci yàgg na ci réew mi. mais tey bu fekkoon amoon nañ benn association des consommateurs benn bu dëgër bu mag au niveau national. Mhm. ci lu résultat yi doon ëppee doole que ñu am ay pàcc pacc pacc pàcc pàcc. loolu la ndaw hmm, Ndao day taxaw fii maître ma soxna kan taxaw fële keneen taxaw fële ku ne bëgg a woowee sa bopp association des consommateurs. ah ñun consommateurs yi kañ lañ daje ba fal leen. te li ma te li ma mës a intrigué <laughs> tamit bokk na ci lan moo tax euh, association des consommateurs bi Sénégal bureau mu war a mën a nekk biir palais. ah yow tamit. pourquoi. eh xaaral ma naan café tontu. peut mën am na euh, ñu ma naan peut-être pour mu gën a jege le président mën ko wax li ñuy mais est-ce que. bureau am foofu la war a nekk. Eh, bu dee bu dee bu dee jege président wax ko li mën a ne. Mhm. président am na yeneen mécanisme yu gën a gaaw pour xam li xew ci réew mi. Mhm. président am na yeneen i mécanisme yoo xam ne ñoo gën a gaaw fuuf pour xam li xew ci réew mi. renseignements généraux yii lu ñuy jariñ eh, ils sont partout partout <laughs> partout. Mhm. ay bu fekkee ci association nga yaakaar pour xam li xew <laughs> waay waay sa waay waa ji daal bu dee palais bureau bureau dafa am daa am daa am bureau pale mhm. ah xaw ma lu ko fa yóbbu de waaye bu dee association consommateur ko fa yóbbu kon na consommateur yëpp jóg. Mhm. gaa la parfois gars yi dañuy créer affaire pour régler seen bagage ci kaw de ah, mu lay wax rek waaw. waa association consommateur lu muy wuti palais. mel ne premier ministre wala ministre wala <laughs> ministre conseiller ah yow koy demal wut siège ci ci ci ci ñëwal Pikine wut fa siège bu mag gars yi di la wax. Hmm. réew ñu yokk ci marché bi ñii jënd ñëw ñëw waxtaan. la waaw. waaw nga xool naka nga koy saafara ak sa ministre de tutelle. waaye yow nga dugg pale rek ni mu jafee doy na waar dugg <laughs> pale rek ni jafe jafee kooku tey boo ko bëggoon a kalaame moom foo ko gisee ci mbedd mi nga koy kar <laughs> dañ bàyyi ah, caaxaan waay on me aussi que OFNAC aussi euh, biir palais la nekk seeni bureau OFNAC euh, on va on va OFNAC on va mais mais bon bëri na ay agence yu rattaché nag présidence de la république mhm. waaw mais rattaché au euh, à la présidence tekkiwul ne biir présidence la nekk ok waaw ok on va vérifier donc état bi moom xam ne ay kuréelam fi mu toll nii doyut état sax day loué. état sax ci locataires yi la bokk di gis ay ministères yoo xam ne dañ leen a luyeel fi ne waaw xam nga moomu réew nag <laughs> waaye ngaa la <laughs> ay waa ji leen lii <laughs> réew moo réew moo xam ne yow sa sa yenn ci ministères yi da leen a luyeel wala ay locataire da gis privé bu ñëw taxaw tabax immeuble am ba mu correct uh-huh. nga ñëw luyee ko dugal fa ministère ah ministère euh, du sport actuellement ci location la nekk. yow fii may wax ak yow. ci location la nekk ministère yi gis waaye agence yi.